bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaam yàlla bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaam yàlla salaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu boo ko internet yi nga xamante ni yéen a baaxu suivre seen télé a nga xamante ni mooy Salam Vision di jàmm ju ànd ak gis-gis mbégte ñu am tey dellu siwaat ci suñu beneen jotaay xam-xam fii fas yéene koo àndandoo kenn koo xam ne àdduna wërngal këpp xam na ko fii ci Kër Massar nee naa leen xam gi ñu ko xam nag dañ koo wane waaye daa wane boppam ci kaw xam-xam bi nga daan toog ci rajo ci bande FM nga toll fa nga toll sa biir kër woote mun la ñaata at nga am ko nangam fan nga nekkee ci biir Ndakaaru nga wala ci biir réew mi nga wax ko fi nga nekk mu di la wax loo xamante ni ba nga juddugu la tey jii daanaka euh, dund nga ko kookee lañ seet si tey bëgg waxtaanee waat ak moom lenn ci xam-xam lenn tam ci li ko suñu borom jagleel waaye tam lenn tam ci li nga xamante ni gëstu na ko ba tey mu ciy dimbali doomu aadama yi rawatina ci biir Sénégal waaye rawatina bitim réew nga xamante ni boo ko internet yaa nga fa ñu gën ko xam ci sunu yaay mama Adama Gueye mu Serigne Fallou surtout yaruwaay bi macha allah rabi moom lañ seet si tey fas yéene àndandoo moom kon mama Adama Gueye salaamaaleykum wa maaleykum salaam taala. Mhm. Euh, Seck na maa ngi sant yàlla bu baax a baax dalal jàmm. allah euh, te di la delloo sa wàccuwaay. Mhm. Euh, di la ñaanal jàmm yaag sa la ñaanal yokkute. amiin allah ci nuyoo bu am solo boobu mama Adama Gueye wax dëgg yàlla ne wax naa ko léegi nee naa leen kon boo ba jeexital sa nuyoo daal di koy tënkaat ci Sëriñ day daal di feddali rek la ma waxoon macha waaye bala maa tàmbali nag dama bëggoon nga mosal ma tuuti sa digganteeg sëñ Fallou. waaw sama digganteeg sëñ Fallou bu ma ciy wax. Mm-hmm. da nga ciy rek. <laughs> dama ci cof waaye mënu maa xaabaabal. déedéet eh, Talla nee naa la sëñ Fallou moo ma defar moo nu defar te sëñ Fallou mooy boole ay nitam. Mm-hmm. Mamadou Fadal. Mm. mooy boole ay nitam. mooy tànn itam nga xam ne ay nitam lañu. Mm-hmm. te dama damaa bokk ci ñim tànn te man du ma nangu sax ku ma jiitu nag ne taaliba sëñ Fallou laa du nangu nga gën koo xër ci sëriñ Fallou barki Modou Fadal defoon naa fi émission mu lëmbe jamono ma defaat émission mu lëmbe waat jamono ba waa kër Cheikh Ibrahima di ma woo barki Modou Fadal mhm. te ci lu leer laa ko teg te bu sama àjjana leere woon noonu barke Mamadou faadal ma faatu tey jàkkaarloo gi ma jàkkaarloog moom mhm. su ma sama ajala leere woon noonu mhm. ma faatu tey nii laa jàkkaarloo moom jaxaran loolu du gént mhm. nee naa man loolu du gént ndax ba ma koy wax sama waajur gu góor gémmiñam a ngi wow sama gémmiñ di tooy te duma ko sos te duma ko fen ak sama bakkanu njaboot dal naa dëddu àdduna bàyyi fi sama njaboot lu leer nañ ñi laa gis ci Mamadou Fadal kon lu ma waay naxee ci Mamadou Fadal damay daal foofu rek la mën a yem tey. <laughs> tubarkàlla waaw man mënut ñàkk ma indi loolu ndax dafa am loo xamante ni euh, ba mu xewee bokk naa ci du ci ci ñi njëkk a waaye am na loo ma ci am na loo ma ci wax. te boobaa tey itam may gis ni maanaam dellu ginnaaw am waaye ak yokkute rek lay yokkute la moo tax ma ne moo tax ma ne faaw bala maay ubbi émission bi. Mamadou Fadal damaa defar. ndeysaan. man ñëwuma borom ñeenti milliardaires yi ñëw ñëwuma leen. ngir Mamadou Fadal. Mhm. man ñëwuma benn milliardaire ngir Mamadou Fadal ndax defar na ma. Mhm. borom yaa faadilan fadlakun xalaaxu yaaman wallaahi azim defar na ma mhm. daf maa defar biir defar ma biti lu nit yëg ak lu nit yëgul mhm. lu nit gis ak lu nit gisul kon lu allah jooyu ma xiif mhm. jooyu mar jooyu ma rafle maa ngi tedd maa sàlla bay teddal ñeneen kon maa sama ñaaru waajur sant ma mun faat am solo loolu nga xam ne ubbee ko jotaay bi loolu sëñ Fallou booy wax ak moom itam wax dëgg yàlla bu bëggee bis jotaay ba neex mhm. waa xolam féex mhm. wax dëgg yàlla laalal ko ka mu bëgg day tax nag mu daal di am boo boo gisee loolu xam ne yëg-yëg la ci man ni may waxee yëg-yëg la wallaay ndeysaan Mamadou Fadal mhm. barki Serigne Fallou du ma xëy suba ba ngoon jot wax minute te tudd ma waxtu bu ma wax ak nit naa ko kon nga xam ne Serigne Fallou daa bokk ci man dokk yàlla dokk yàlla dokk yàlla tubaarkàlla <laughs> ma waa Adama am na solo nañ teg foofu baaraam nag damay ba ñu daal di toll ci dimension waaw monté bi lay <laughs> nañu wàccaat rek su ko defee rek fi <laughs> nga bëgg ñu ñu ñu ñu dugg fa ci mhm. wàllu li nga xamante ni suñu borom na la ko da mhm. nga ci dimbali askan wi saa mhm. man mi toog am na lu ma ci xam ndax naa ba ma koy xam du tey fukki at ci ginnaaw booba ña ca rajo jamonoy dox ba nga génn ca rajo ba toog si sa kër ca Pikine jamonoy dox ba makkaanu bopp fii ci Kër Masar. Mhm. alhamdulilah yàlla na ci yeneen a yeneen a yeneen. allahumma amiin topp da nga fekkee waaye seet. Mhm. gars yi dañuy wax ni dañuy seet ay seetkat lañu. Mhm. waaye man nee naa mama Adama Gueye du seet gi moom bu mu demee ba li ngay gis nga di ko gis en temps parce que dafa bëri yoo xam dañu naan bu dikkagul bàyyi ko xel mi ngi ñëw. waaye yow waxagoo a dikkagul nag ma naan lii ñii ñii demee nii nangam nangam jot baaraam gi moom. daan naa toog direct ni la ndox du bàyyi yoonam. maman Adama Gueye day duut baaraam. loolu laa naa la loolu may suñu borom la. tiitaroo ma ko damoo ma ko bàkkoo ko te du ma toogee palaasu yàlla waaye may may suñu boroom la du ci yàlla may dangay ngay jël lam la may muy sa alal soo ko sàgganee hmm. yàq nga àdduna de danga yàq àdduna ndax ka koy jël est-ce que moom mën na ko. est-ce que wàllam la itam est-ce que wàllam la est-ce que cëram la ku ci nekk ak li la suñu borom cërale. Mhm. man lii la ma yàlla cërale tey su ma sañoon tey jii man nekk tey jii ci ay bureau mhm. nekk bureaucrate nekk journaliste wala ma nekk leneen wala ma nekk avocat wala ma diiroog mag Macky Sall ne ko fi nga ah, toog poste bi nga toog dama ko faa bëgg a toog wax lii <laughs> mais lii la ma yàlla cërale mhm. ba ma jàngee école mu teel a yàqu ma toog ma xam ni kon du lii di kii ci man tey may màgg di ko yewwaale di ko xam di gis ma xam ni kon lii la ma suñu borom cërale ñuy mhm. taala damay xool di gis mhm. te du ma laal petaaw man may wax rek daa <laughs> war a leen samay doom a ngi nii duma ma fen mhm. yal naa dëddu àdduna bàyyi leen fi damay xool ba ci yàgg ma wax ñu ni ma yow deel bàyyi di gis di wax ndax lii baaxul wallahi azim loolu kon kon loolu may suñu borom la. Mhm. dama koy sant yàlla. ba pare nag nekk lu ma doon. Mhm. Ah. sama yaay wàllu wàllu pire la. ndeysaan. yor ay tuur. Mhm. des dell. kon bu la a cëralee lii da ngay sant suñu borom. alhamdulilah damay sant yàlla bu wér. ndeysaan mhm. allah am na solo mama Adama Gaye nee na fi mu ne daanaka cër suñu borom la ak nangu dogal mhm. nee naa fi mu ne def ci bëri gaa yoo xam ne ku ci toog fëgg dënnam. sa dënn waru la. Mhm. waaye suñu borom la mu jagleel la ko te xeebuloo ko. xeebu ma ko ndax des fois may ñaanal nit mu ne ma damaa bëgg nga ma ban jour lay sotti Euh, ñaan yi ba kañ kañ daal damaa bëgg nga dateel ma. Mhm. ma ne ko yow soo bëggee ma delloo la sa xaalis. man datelu ma kenn. <laughs> yàlla yore ay data. wallaahi dañuy ñaan dañuy liggéey. li mhm. liggéey yow du ma la ko joxee nga jàkkaarloog li may liggéey di nga xam ne ne lii nekkul liggéey bu ndaw. Mhm. waaye suñu borom nag la ñuy ñaan. yàlla mooy maye. buur bi rabbana mooy maye. kun fa yëkkoon mooy maye. kon bu ñu bëggee toog laasu yàlla ñun xanaa nekkuñu nit te yàlla sàkk la. dëgg yàlla. yàlla sàkk ma mm. may may jéngoog te yàlla di xéenteeg moom mbagg mm. xalaatuma ko damay ñaan te mm-hmm. man daa xam nga lan mooy sama préféré mm-hmm. naa ñaan nga gis li man la defal surtout nga boole a ak keneen mm-hmm. képp ku may ñaanal dama naan la dama lay ñaanal waaye bi ma lay ñaanal damaa bëgg nga boole ma ak keneen ak keneen moo tax dama ciy fas sama jox ci liggéey bi ak fulla a fayda nee naa la benn taala doo ma woo téléphone ma coupé la du la def liste noire heure vingt quatre ba fajar heure boo ma woowee ma jóg ne bëri ndax sama liggéey na maa ko ot maa a opté nee naa leen ko whatsapp bi kay connexion bi defe naa ne vingt quatre sur vingt quatre la fi nii ma ne la moom xam ma fëggee ma wuyu la mhm. bi mhm. boo ma bindee ma sama téléphone sonné mhm. ne am naa message ma lire ko tontu la boo ko wuyu wul fi ne da ko ma ne la sama téléphone ku ci woote jot ma sama doom day wuyu. waaw man damay wuyu. ma bu bu bu urgent wee. Hmm. ma bàyyi sama appel wuyu appel di urgent. macha allah. ndax nit ki am soxla hmm, hmm. am ay yitteem. soxla la nga koy minimiser wala nga koy woom mu jafee jot. lool du dëgg du yoon ya woote pour dimbali doomu aadama yi kon doomu aadama yi buñ la woowee da leen di yëg. loolu mooy dëgg. nañu bàyyi caaxaan. dëgg la de waaw yow boo defee émission joxe say numéro téléphone. dañuy tàmbali woo nga daal di yow jafe loolu ci tiitaru laa ko teg. tiitaru nag di wàcc yow wàcc aw yoon tiitaru gi ngay tiitaru ñi lay woo ñooy tax ngay tiitaru. ngay li nga am. Mhm. ba yëg sa bopp. Mhm. wutoo nit ñi doo ko ki. Mhm. gënoo ko ndey gënoo ko bàyyi yàlla moo la sàkk sàkk ku ci nekk dafa am lu mu dëxañ ci moom. ku ci nekk dafa am lu la yàlla cërale. li la yàlla baax ci doomu aadama yi. te buñ la woowee na leen jël. surtout. dafa dafa dem ba fi mu toll nii fi mu ne métier mi ngeen nekk sax fi mu toll dafa dem ba commencé yàqu ndax tey ji daf ci bëri réclamation yu bëree bëri yoo xamante ni fi ne jëm ci sëriñ si rawatina nag plus ñu góor ñi sama baat ni poto sama baat ci kaw li may wax ragaluma ko mhm. ndax li ma yor ci ay dossiers du ma ko génne. la donte nag xëy na seen i man maa ko defoon. dëgg la ndax man rag dem naa ba damaa ragal. may defal émission te xaw ma la cent pour cent. ma def ak yow ma gëjee gis ma génn ci internet bi yàgg na. xam naa li ci ne. dëgg la du ma sama maanaam sama daraja laa dul wanteer. dëgg la ndax def émission koo xam ne daanaka boo liggéey bu subaa am am fi problème. Mhm. ñu naan yaa ko defaloon promotion yaa ko def fekk ne ñun ñuy def nii du promotion. dëgg la dañuy jaamu yàlla man. dëgg la sama baat ci kaw. dëgg la jaamu yàlla ci jaamam. damaa jàpp ne tey maman Adama Gueye su ma ko seeti ñu waxtaanee xam-xam am jaamu yàlla bu nekk fële. Mhm. dégg la ñu wax. Mhm. soxlaam bokk ci la ñu waxtaanee. bu jokkoo ak maman Adama Gueye bu saa soxlaam saafara woo ci kàttanu suñu borom. Mhm. damay jàpp ne bu ma man dinaa rus. ma ne la. Euh, li ma lay wax ci loolu. ndax nit day am problème du am fu mu ko jooyee. surtout. nit day am problème nekk ci ay jafe-jafe wala mu tawat. wala problème yi jamono ndax ku judd ànd ak problème yi jamono. su ko defee boo nee tey ji naa dem ci maman Adama Gueye mu dimbali ma. Mm-hmm. def na émission am na ku sant sekk kat. bu mm-hmm. mu defal émission. Mm-hmm. émission bi dugg na ma. nga woo maman Adama Gueye gis ma. wallaay ndeysaan maman Adama Gueye seetal la. génneel la ay sarax. defal la li gën ci yow. GP yaa ngi fi. Euh, nu mu tuddati. càq càq yaa ngi fi càq yaa ngi fi. boo mën a ne ci réew mi daal moom kenn soreetul léegi. man la barki démb rek yóbbu naa ay bagages man damaa yore càq càq. ndeysaan ndax bëgguma sama dara traîner. sama doom moo yore càq càq bi. bëgguma sama dara te na képp ku dugal xaalis sama loxo bii mhm. ñu waxante ma bind sa tur mhm. bind la nga xam ne moom nga soxla mhm. dama la koy liggéey te saasi bu amee ñetti fan ñeenti fan da nga jot sa bagage wér na soo ko jotee bala nga koy jot dama koy filme ni la numéro bi ma nga bi nga yore noonu am na whatsapp enregistré whatsapp bi ma bind ma ma photo lépp envoyé la ko ci sa whatsapp ni la gàllaaj gaa ngi noonu bis bu egsee jotal boo jotee nag woo ma ñu daal di wax la nooy defee laaj woo ma bu ci nekk dinaa ko bind boo ci ginnaaw. Hmm. na nga koy jëriñoo boo ko xamulee ma wax la ko benn par benn. Hmm. nga jëriñoo hmm. noonu laay liggéeyee. loolu de leer na moom. man noonu laay liggéeye sama liggéey noonu la. noonu laay liggéeye tabarkalla. yenn saa ñu jox ma ma yóbbu fii nu mu tuddati mama fi ngeen di yóbbu posu. posu waaw poste DHL publicité wuñu waaye na ci la bokk adhéré sukkër hmm. publicité wuñu waaye daf cee bokk na cee bokk wallahi azim hmm. ñu ngi may fajal samay aajo ñi ngi fajal jaam seen i aajo ndax du say aajo ñoom ñoom jaam ñi buñu jotul seen sa poste seen i poste ñoom wallahi azim hmm. damay dem poste nga jox ma sa adhéré sukkër ma déposé na say bagage mu def quinze jours nga def say bagage GP di ñëw man la ndax wóoru ko ndax bëgguma ko soppi samay gàllaay ah, waaw soo ko wóoloo. Hmm. ma jox ko te dinaa fotal lépp envoyé la nga xam ne bis boo ko tàllalee di nga ne lii laa la envoyé woon. yor na. barke hmm. Modou Fatal. yor na noonu lay liggéeyee. noonu lay liggéeyee man sama liggéey dafa leer naññi nee naa bëgguma lekk nit xaalisam ba pare mm-hmm. mu may woo du ma jot ku <laughs> ma <laughs> loolu. <laughs> allah Guèye Nioro xam ne ko ko jàppee toog ak buuram ndax du mën a du mën daal macha allah mais yàlla yàlla xëy dooli teg ko taxawaay bi moo tëdd. est-ce ndax nee naa mm-hmm. si góor si tax nañu ba ba ba ba kenn wóolatul sëriñ kenn ñemeetul sëriñ mhm. te ñi ma ci gis mhm. ñi ñi ñi nga xam ne mënta ñàkk xam nañ ni mënta ñàkk ñu jëflante ak yéen mhm. sax léegi sëriñ si jigéen si yéen yéen man am na ñu ma ko ci wax am na ñu ma ko ci wax mais man daldi bu may liggéey li ma soxal laay def surtout li ma soxal man loolu laay laay jublu ndax des fois nga ñëw ni ma man de damaa demoon ci diw dañ may jox ay tur de ah, waaw waaw diw waaye daf maa lekk nangam. Mhm, mhm. waaye su ma ko woowee daf may si supprimer na sama numéro. jour ba ma ko jotee dama ne ko man la diw man nga laajoon nangam. Mhm. ma jox la ko bu ma la woowee doo ma jël te beneen numéro la jël woo ko. woo ko ci mu jël te du moom kese de. ay nit nit wax nañ ma lool. mais nañuy gëm suñu bopp. nit ki li nga woote mbooloo topp la. boo ca dee def gëmal sa bopp te gëm ña ngay defanteel. ña ngay seqalanteel mhm. na nga leen gëm te xam ne ñoom ci seen jëmmi bopp seen alal doon ko ñàkk ndeysaan te dañoo am jafe-jafe ak ñoo jar a bàyyi xel ñu amutoon jafe-jafe doo leen xam mhm. man àdduna wërngal képp laay waxante mhm. monde moo tax nee naa la ba une heure du matin ba deux heures du matin dama koy wax téléphone ndax Amérique am na ñoo xam ne heure bi ñu ngi ci seen digg bëccëg bëccëg donc ay minuit ñoom la ñuy dellu nekk seen kër doon nekk seen kër doon mën a am temps li jëm ci lu ko li jëm ba ci seen fajar ñoom bu mhm. deux heures jotee mooy doon seen fajar ah. ci lañ may woo ci lañ may tàmbalee woo heure yëpp laa xam mhm. fii tàng ak fii sedd mhm. heure bi temps fee heure bi noonu lay doxe heure bi noonu lay doxee bi noonu lay doxee foofu ci Sénégal heure yëpp laa xam moo tax sama liggéey nee naa la taala ma noon naa am yaram. Mhm. mais sama liggéey mayu ma may am yaram ndax sama nelaw doy. dëgg la dama respecté mhm. doomu aadama. Mhm. doomu aadama dama ko respecté. ni ma gëmee sama bopp noonu laa gëmee doomu aadama yi. ni da ngay nawloo sa nawle surtout. ak am solo <laughs> nawloo sa nawle dinaa olof di <laughs> wallaay ndeysaan soarkal <laughs> la jërëjëf mama am solo boobu wax yàlla macha allah parce que na tam fi ñu wax dëgg yàlla jamono jaxasoo na te nee naa fi ñu doon yàlla nit ki jox la xaalisam xamoon na am mm-hmm, mm-hmm. am yaakaar ci yow gannaaw bi mu yaakaare yàlla mm-hmm. naa kooko waroon naa tax nga sol ay dàlli weñ di daw ba ngir saafara ngir la muy a ak bëggam nga saafaraal ko ci kàddu yàlla tamit wax dëgg yàlla wuyu ko waxtaan ak moom dalalaat xelam sax moo moo tane sax bañ a wuy bi wala waaye doy Adama ba tey ñu yi bëri sëriñ si yu bëri ñemewul mooy ci wàllu sarax moo ci ñëw mais dafa ay xeeti jàngoro yoo xamante ne nii maman Adama da nga tey lu ci mel ni hémorroïde xam naa ni maman Adama sëriñ si yëpp moom la coow waaye xam naa ne am nga ci loo xamante ni moom xam naa ci secret yi jógee ca ca borom yor waay la war a doon ndax loolu fi mu toll nii gars nii nii nii maanaam lii nga xamante ni tam mooy xeetu perte blanche te muy suñu mbokku soxna yi tamit ma gis ni da ko maîtriser te macha allah am nga ci yu doy waar yoo xamante ni te loolu lépp buñ ko seetee est-ce que yooyu bokkul ci lu mën a tere nit jigéen mu am doom wala mu jël ëmb wala yu mel noonu. waa commence baax. Mm-hmm. day dem bay xëy. Mm-hmm. day dem ba indi la infection. effectivement. perte blanche foo gis muy génne perte blanche. Mm-hmm. bu bëri am na infection. allah kulli àlli. moo tax jigéen war a faj loolu. te une semaine laa koy faj nga tàggoo moom. cest à bi li neex ci moom fi ne dala naan finis quoi. ku ñeme dañ laa dee. mais sama caméraman bi bootul mu taaleel caméra bi fi mu toll nii tamit mère. nee naa ko dañ laa dee. ku ñeme dañ laa dee. hémorroïde mm. mm-hmm. dama koy faj. Mm-hmm. ndax am ñetti façon hémorroïde moo am. gars yi naan ñaar. ñetti façon. <laughs> gars yi ñaar la ñuy wax ba léegi ñaar ñaar daal la ñuy wax. bi feeñ feeñu daal la ñuy wax. Ah. bi génn ak am na ba ko ñetteel. ñetti façon la. tey ñu dégg dëgg. ñetti façon hémorroïde moo am. dañ naan bi feeñ ak bi feeñu mhm. ak bi nga xam ne day nàcc bi mat hmm, boobu dafa mat sëkk dafa mat day toj bu tojee nag da ngay xelli deret mhm. booy dem toilette da ngay xelli deret te deret jooju boo jonkanee du arrêté da gis mu mel ne saw waaw di génn boobu mat na danga ko war a faj te loolu boo ko fajee mën na la ëllëg problème parce que kon boobu mooy bi lay teree dox di la teree toog di teree def yu bari te ñu bari am na ñoo xam ne suñu mbokk jigéen ñi ñu ngi koy jëlee ci njurum doom ndax puus bu metti day génnee ginnaaw hmm. te suñu mbokk jigéen ñi nekk ci hôpital yi hmm. nañuy dimbali jigéen ñi ci puus bu metti dañ lay puusloo di ba nga teppi sa bopp di la puusloo ba sa ginnaaw génn oh. nga koy dugal ak sa baaraam hmm. boo ko teree teewul mu indi la problème ah. mooy hémorroïde am na ñoo xam ne seere moo leen koy def. jigéen na tam ñu naan toogaay bu yàgg na ñoo ne toogaay bu yàgg moo koy def. Mhm. moo tax liggéey ñi ngay gis ñi liggéey di toog ñu bëri. Mhm. dañuy am hémorroïde. moo tax dañ koy war di faj. Mhm. daf lay jeexloo ndax dalay lay ngacc. da lay ngacc. di la ñuy ñi nga xam ne day génnee dara da lay da leen di animé loo. Eh. da di animé loo moo tax man bu ma lay fajal hémorroïde dama lay jox loo xam ne day yokk sa deret. dama loo xam ne yokk sa deret non mais dama gis sax am na yenn xeeti jàngoro yoo xam ne boo koy faj fajal nit ki nga joxaale ko garabu ndoxum siti man loolu moom bokkoon na ci li ma bëggoon a laaj tey waaw pourquoi ngay jiital garabu ndoxum siti boobu noonu euh, ndax koo xam ne yaa ngi dund ci kaw suuf am nga ndoxum siti dégg ko amul gaana nga de waaw ku ko amul gaana ndoxum ak gaana dañuy xeex hmm. ñaari feebar yooyu ñoo nekk ci doomu aadama dañuy xeex bu gaana gi gañee da gaana bu ndox mu siti bu gaana gi gagné bu ndox mu siti ngay am. ok dafa nekk bu bon ak bu bon. Mm-hmm. kure bët tam dafa am. ak kuli. ak <laughs> kay mag ñi. la ilaha illallah. te loolu yëpp suñu gàncax gi rek. lan koy mm-hmm. mag xamuñu woon pharmacie ci gàncax gi rek lañ koy fajo man maa ngi seetlu bi ma nekkee xale su ma daan dagg. Mm-hmm. sama yaay daf ma naan demal ci tabanaani gi nga dagg. ma dagg ci tabandaane gi bu ma ko ci toqal njooy njooy mu weex bi day daal di fermé wu. tabandaane ay bante maare. tabandaane mooy li nga xam ne boo ko ci defee day kole dafa mel ni dafa am kol ndox mi dafa mel ne lu am. kol comme awa boo ko ci def bu bërsatee mu kolew loolu noonu dañ ci faj boobu mu robaale. gaa <laughs> yi buñ pirate gaa yi moom ne leen buñ pirate parce que pirate yi dafa bari ci réew mi. gis nga loolu noonu boo ko amee. nga boole kook yaxu nit góomu robaale laa lay wax de mhm. nga boole kook yaxu nit ak tayitu indee nga mhm. taye ko sunguf sunguf mooy sunguf bi ngay tooyal taf ci bi ngay tooyal di ko taye ci inde bi mhm. moom ngay boole tëbb ko ba mu nooy nepp boo amul yaxu nit nga tëbb suufu bàmmeel bi boole ko moom di ko def ci góomu robaale bi doo ko ci def ay verte wér Cheikh Mbaye te góomu robaale bëri na fi rey de bëri na ñu mu rey bu la bàyyee rek da ngaa dugg biir suuf boo wéree rek dangaa dugg bii suuf te bëggul sobe heure boo hmm. amee sobe mu wut nii képp ku am góomu rabaale bu amee sobe day wut nii wax saalum saalum naan damaa nekk bawal bawal nekk saalum saalum juddoo saalum yaroo saalum sama baay di bawal bawal la kubar juddoo ndula <laughs> ndula genn ndula ndeysaan na bëtu ma de na bëtu du ne maa ngi man sëñ Sam Ndula lañ ma tuddee man <laughs> sama baay bi ma jur dula la juddoo. kooku borom xam-xam la. ah yow tam. léegi <laughs> du rek. gàncax la ñuy gàncax li ci ëpp lépp gàncax la ñuy liggéeyee. wallahi lazim. te am na garab goo xam ne tey bu ma bëggee ñaar jubóo la ñaari nit. ba yomal xiyam dootuñu tàggoo. Hmm. soo ma ko joxee ci àll bi laay dem gas ba dagg reen ba boole koog la ma neex la nga xam ne moom lay laaj. ba hmm. boole koog moom kole ko te bu ñu kolantee dañuy dañuy kole ci biir. waru kolo ko kole ñàpp yow nag mère indi nga problème ndax bii moom di ko kole bii may bii moom di nga ko kole bii moom di nga ko kole kole ñàpp la su ma garab googu laay laay gas ca reen ya tàggale leen dootu leen jàkkaar na ñuy jàkkaarloo rek waaye koo leen ñu rek yoo xam ne dinañ la teg fitna yoo xam ne da ngay bëgg rek na ma rey koo la ñu rek <laughs> moo tax xam-xam dafa sew oh. nit dañuy dem xam nga damay ma maa dama koy ak am xam-xam waaye xoolal ñu simple waaw loolu moom bi waroon tëj émission que <laughs> loolu bokk bi dama koy wax dama koy wax dama koy wax dijee bi ñuy dugg ci biir kër ma ko tey nga gis nit ku simple da yenn saa yi damay yenn saa yi ma nekk xale lu ma neex mel yow xam nga ci dara. yow xanaa pare nga. man nu ma neex mel man nu ma neex mel damay soppeeku comme kakkataa comme jaam ñangoor damay soppeeku. daay daay la su ma neexee léegi ki ko mën su ma neexoon guddi ma toog tuma tubay sol sama baa romb la fii sol samay baral romb la fii. nekk xale bu tuuti mais mère maa ngi ànd nañ campagne yi. <laughs> dama fàttali loolu. <laughs> ma neexee nekk màgget mu nekk tàll béj jaaw ba sama yéen yi béj jaaw ndeysaan loolu mbiru suñu borom la mm-hmm. Mm-hmm. wallaahi mbiru suñu borom la seen saay damay màgget ci kër gi baraam su may dox damay su may toog bay jóg damay jàppoon yow est-ce que du bagage yi la bagage yi la ah, bagage yi la <laughs> bagage yi la yenn saa yi damay des tànk ba gëm sama bopp ndeysaan waaw waaw def ni fi mu toll nii dix-huit ans nga am waaw ah heureusement ba duñ la bàyyi rek ñoom heureusement ba duñ la bàyyi parce que buñ la bàyyee rek suñu ni moom <laughs> day na waar macha allah maman Adama Gueye la ñuy àndal ci waxtaan wi boo ko internet yi nga xam ne yéenay teewlu Salam Vision nee naa leen jàmm ju ànd ak gis-gis la ci jàmm la dox waaye jàmm jooju itam saa su ne bëgg mu ànd gis-gis ba tax kenn ku ci ne di ci mën loo xam ne di ko ci jëriñoo moo mooy waral suñu jotaay yi saa su ne ba tax tey ñu seet si ko dégg ngeen ko li muy wax liñ naan tungu ne moom du teew ñuy nataal déedéet mooy wax ci làmmiñam ngeen di dégg li muy waxi tamit lu lu lu lu neex a dégg ci nopp la te nopp moom def naa lu ci neex rek dama yeg ci biir xol macha allah rabi kon na numéro téléphone am yaa ngi noonu ci barre d'écran bi du fa jóg wax dëgg te bi ñu ko xamee ba tey li garaaw mooy bi ma ko xamee ba tey ma sa changé man bi ma ko xamee ba tey dama yor jikko mooy du ma changé numéro man mm-hmm. mais moom loolu laa xam ci moom du changé numéro mm-hmm. te heure boo ko woowee boo ko jotul doomam ngay jot maanaam jàmbur wàlli yaar ñu si ci biir këram wala mu koy jàppal ci liggéey bi déedéet parce que dégg ngeen li wax am na ci loo xam ne lu mu cosaanal lu mu cosaanoo lu mu jëlee ci ay waajuram ak lu mu gëstu ak lu ko suñu borom jagleel mm-hmm. kon du ko ne lañ ko mën a jox kon faaw ki koy ba ci téléphone bi bu dul doomam gisuma keneen koy wuy donc kon loolee lu lu jara lu jar lu jara signalé la lu jara bàyyi xel la waaye itam ndax parce que nit ñi fi mu dal dañoo jaxasoo dem nañ ba wóolatuñ sëriñ ndax woote mm-hmm. fexe ba encaissé xaalis waaye boo xasee ba encaissé xaalis dootuñu la jot secrétaire dañuy jot ak bëkk néeg beeg bukki néeg beeg ndaw seeg day sangoog day jàpp ak day julli julli ak jàppoog sangoog yëpp bu ci ne am na waxtu du jël cinq minutes kon boo paree ki doon woo da ngeen seeq dara war nga ko mën a rappeler mais gars yi defatuñ loolu moo tax kon maman dama yow ñu ngi lay sant bu baax di mhm. mhm. wala may def samay wirdu su ko defee na mhm. maa lay rappeler lu leer man du ma ñàkk crédit. ah déedéet man kay xam naa ci dara. <laughs> man heure bu ma la bëggee woo. soo ma woowee jotoo ma su ma paree man maa lay woo nekkal ba essayé dama lay woo. mooy fula. dama lay woo lan moo nekkoon sa yitte. Mhm. man man nee naa du ma yàlla waaye bëgguma nit ko am problème. ndeysaan. ma yàlla. Mhm. mais bëgguma nit ku am problème. yéen woo ko kenn ndax kenn ndax problème xajul ci doomu aadama. déedéet déedéet. damaa toog ak nit mu ni ma fi mu ne sa benn sa benn mbokk mu ni ma man fi mu te ni eh, ko nit ñi amee benn yoon man dama koy yenu mille fois ma kon ko ndax lan mu ni ma parce que dama koy gis muy ñëw ma ma ma teel ko gis maanaam yanu yanu sama bos yanu wàlle nit ñi nga xam ne gisaguñu liy ñëw kon yéen yéen yéen yéen nekk yéen ñi ne ci wàll wi kon wax dëgg yàlla euh, gàcce ngaalaama yéen di leen ñaanal la ñu war a def yéen ñi nga xam ne yéen a ngi tege ci yoonu siraatal mustaqim waaye ñiy wàcc yoon bi jël mbooy gi moom yàlla nañ dajeeg borom mbooy gi moom parce que nag ñi leen di jox seeni xaalis sonn nañu te nag fii moom ku waxul dëgg rek waxi kàcc fi waxul dëgg rek waxi kàcc moom waaw kon ku ci wàcc mbooy gi daal yàlla na nga dajeeg borom mbooy gi waaye ku ci tegu ci siraatal mustaqim yàlla na nga dajeeg ngërëmal sunu borom rek wax dëgg yàlla man loolu la amee ah, bien sûr tamit wala jamono toll wala jamono toll liggéey dafa métti nga am sa problème jël li nga am ak mu néew mu pare nga jël ko yaakaar nit ki. waaw jox ko ba pare soo koy woo téléphone du la jël rafetul jëf. <laughs> man de man de man de. rafetul jëf ku ci jaaree ci Salam Vision ba am ko ci man dossier boobu maa koy lijjanti sama bopp man kenn du ko lijjanti maa koy lijjanti sama bopp. dëgg yàlla parce que rafetul jëf. mi ngi noonu daal macha allah rabbi am na solo mama Adama ñu waat ci beneen jàngoro bi nga xamante ni wax dëgg yàlla euh, sëriñ si sax léegi moom defe naa ne ku ci moom ngay utee buzz impuissance sexuelle ñu di ko dégg ci góor gu néew kàttan wala góor gu gaaw a jot boppam wala yu ni mel man dama toog dugg ci tiktok bi barki démb gis ci koo xam ne moom day tudd awra ci làmmiñam direct man dama ne kii est-ce que moom ça mun bi ma laajee ci commentaire bi xam nga lu ma tontu naka la neneen nan la tudd ma ne ko lam moo tax ñu wor maal baat bi ba ni awra mu ne ma bañ nga ko ba ni da nga ni wormaal mais lii la nii la tudd. ma ne kii su ma fi toppee di wax ak moom ci commentaire bi mhm. man maay tardé te am naa leneen lu may xaar ma bàyyi mu sedd mais impuissance sexuelle xaw ma góor bu gaaw a jot boppam xaw ma mi ngi lëmbe réew mi gis naa ni am nga ci solution parce que man mhm. du du teew ñuy nataal de man li wax moom man saa wax man saa wax da du sori man laa wax man. <laughs> loolu laa bëgg foofu laa bëgg a indi. mës na ma cee jox loo xamante ni. dama ko ñemee. Ah, ah. man waxuma damaa jox keneen wala damaa indi nit de man la jox man maa ñam. waaw ñamaloon naa la. dana dee. danaa ko rey looloo ma ci jaaxare danaa ko rey moom ci bit danaa ko rey léegi bu nu paree. man du ma génnaat fii te joxaatoo ma de. ñamaloon naa la de. dama am seet dama <laughs> ñamoon nga ci de. daal fi nga duut sa baaraam foofu daal man bëgg naa nga ñëwaat yi waxaat yi parce que nit ñi nit ñi sonn nañ. c'est vrai nit ñi sonn nañu. dañoo sonn stress daf koy nit. stress. nee naa jàngoro bu kenn dul a ngi noonu. stress daf koy def nit des nga tiim sa soxna sa xel dem te la nga xam ne moom ngay xalaat mu defoon la stress ci bëccëg bi billahi da ngay sedd guy comme glace. Oh. da sedd guy comme glace moo tax euh, itam ni di leen dimbali daf ciy baax. Mm-hmm. ñi di leen dimbali. Mhm. ndax ci baax. jaamu yàlla la ci jaamu yàlla la. Mhm. surtout maa ñi nga xam ne dañoo amee stress. am na loo xam ne boo ko bindee naan ko sax na waa nekk ci pharmacie rek mu ngi ci alxuraan. dama naan man gars yi pharmacie alxuraan la ñuy jëlee ak gàncax yi pour taxawal pharmacie. waaw kon fii mooy bi dëgg bi. ndax suñu borom moo ne mbooleem jàngoro bu ma wàccee ci kaw suuf la koy saafara ma nga ca wetam. solution baa nga ca wetam la ci teg kay moom. yaay yaay làmbatu feneen rek. Mhm. mais solution bi ci sa wet ko xam. ci ah kon di nga faj koo xam ne xelam dafa wàññeeku mi dafa wàññeeku yow yaa ngi koy defal loo xam ne xel mi day tranquille mhm. nga yëg ni kii nam meloon ak na mu mel léegi bokku kon kañ mën nga faj nga a delloo si ba xelam nekkaat proposé yàlla lu waxaale wuñ ko lu leer ko ki nga xam ne xelam dafa wàññeeku yaa ko tane. Mm-hmm. kon la la la xelam moom mën naa delloo si sa xel ba koy teg mm-hmm. ah, xel de moy nit moom. xel mooy nit. Mm-hmm. te loolu nag mooy indi presque. stress bu bëri bi dem ba jur ne impuissance bi. waaw moo koy indi ñenn ñi euh, amee jabet. ok boo commencé am début jabet. ok. ba muy doon fonctionné. moo tax chaque jour dama naan nit ñi nañuy suukar. nañuy xool suukar. surtout. wàllu suukar nag du ko ko boobu. bu ko gëstoo mën ko. mais yenn saa yi nag damay saturé. mu mën a laal fii laal fii laal fii. Mm. da ngaa doylu rek da ngaa doylu rek da ngaa doylu rek macha allah. li nga xam ne foofu nga mm-hmm. mm-hmm. ko dépassé de ñu ko wér de. lépp dañ ah ma ne da lépp dina <laughs> te dut baaraam lay def kat de dut baaraam yow ñam dut baaraam <laughs> du bàyyi yoonam. wallaay du bàyyi yoonam lay def. ndeysaan maa ngi seetaan ñoom. Mhm, mhm, mhm. mantulaay mantulaay sama mbokk la ndax des dafay wax danaa la jox numéro foofu ku baax. ndeysaan mhm. jàmbaar baag bookar ndeysaan ni ñuy taggee ma am yaayam noonu la mhm. ñuy taggee sama yaay macha allah sama yaay caam jiir la te mhm. yaayam moom caam jiir la te caam jiir yëpp waalo benn bopp la benn bopp la ñu danaa la jox numéro Mantoulaye sama mbokk la <laughs> nit ku baax sama mbokk la nit ku baax sax saa yu génnee dafay mel da ngaa xaar sama xol bi rek ndeysaan oh waalo waalo daa bëgg mbokkam wallaay ndeysaan <laughs> waalo waalo daa bëgg mbokkam tubaarkàlla ndeysaan yenn saa yi dañuy waxtaan damay reetaan damay reetaan damay kontaan Eh, surtout ma bu ñu waxee ba ne ndox du bàyyi yoonam eh, la voilà piraat la de wallaay loolu de ba nga koy wax defe naa ne nii 2011 2012 ah, du tey de booba booba booba seen télé bi sax amul. booba ñoom seen patron télé <laughs> ma nga nekk ca ca nekk ca Sacré Cœur en face en face BDN bi <laughs> ah waaw kii la ma yàpp fekk de. lay lay la la eh Mbaye. Ah, <laughs> euh, leen ñaar fukki at lu topp ci média ku ah, def. Hmm, dëgg yàlla xëy na ah. dama jàpp ne fi ñu ci toll fii lañ fii lii la ñu ci suñu borom cëral nit du xeeb nit du xeeb cëram waaye nit itam du yóotu lu dul cëram. nit loolu yóotul externe bu boobaa dangay gaañ sa kese baadu la man jàpp naa ni daal liyee sama cër te maa ngi ci alhamdulilah maa ngi ciy sant suñu borom bu baax ndax maa ngi ciy jaamu yàlla man mooy mooy li ma ci ma ci gën a gën a itteel macha allah mu doon lu am solo kon daal mbokk yi yéen ñi nga xamante ni daal fi mu toll nii néew kàttan mm-hmm. wala yéen ñi foowee seen bopp ba mënatu leen lu bëri mm-hmm. wax day leer daf ci bëri ñoo xam ne foowee seen bopp ah, moo leen ko ah, yóbbee non mais dëgg la dëgg ah, la tamit parce que dafa am da dund nit ñi ngay dundee juddu di màgg ba doon màgget war a dee waa léegi yow li nga am pour war a ba màgget nga daal di koy foowee aas bi mais ah, ah, ah, ba bala ngaa dee loo asa bombe bi bi rek waaw musal da du jeex wallaay du jeex wallaay te buñ jógee di ko ji ñam yi te ñam yi du ci dara ñam bi deful dara benn ñam defu ko waaw wax nay leer léegi ñaata rek lañ fi nekk ba yi ba leen pom yi te te te fooyee ko fa ñu ko war a fooyee su ko defee rek mooy loolu moom moom nag ma Adama Gueye nag am na ci loo xam ne moom nee naa leen ah, kenn nettaliw ma maa mos maa ngi essayé man man maa essayé kon wasalaam foofu laa ci mën a yem ku bëgg itam ñëwal essayé rek numéro téléphone baa ngi doon woote am na juróomi at ci suñu ñaareelu émission bañ defoon seen place la am na juróomi at am na juróomi at muy ñëw di ñibbi mën na ko ñam ko yóbbul ak saabu ndoxum si tiya waaw yóbbul ta ñam <laughs> maa ñam kon maa leen nettali yéen wasalaam su ko defee mama Adama Gueye tey lay rée ba dee xam nga nag xama jotaay bi dafa mënta ñàkk ndax wax dëgg yàlla euh, gëjoon na am te wax dëgg yàlla macha allah rabbi ñoo xam ne nee naa bi bi ma koy xam gën naa doon gone wax dëgg yàlla doonte booba tam doon nañuy waxambaane doon nañuy responsable waaye gën na doon gone waaye di toog di ko xool ci antenne nit di woote mun la fooy woote nga ni bërëb sàngam ñaataat nga am nga ni ko nangam ci at mu di la wax loo xam ne ba nga juddoogul ba tey yow yaay doyal ci téléphone bi coupé kon loolu du tey wallaahi mhm. bloqué standard ba dafa bloqué kay fay ndax appel yu boo lekkee teg sama direct maara day taal. une heure jàpp trois heures. dem nañ ba mujj gi nit ñi dañ jàpp ni moom heure bi muy toog heure boobu la la la appel yi di gën a ñëw. tax ñu changé ko heure. waaw heure. naa loolu ak moom. ñu changé ko heure waaw. <laughs> ndax mhm. ma seen jël sama mhm. Papa Étoile. waaw lii moom gis naa ko ci yéen ci Safir FM. ak Mariama si mu sëñ Ah, ah dëgg yàlla sëñ Cissé mu sëñ Babacar itam de am na jamono moom ndeysaan oh macha allah rabi ndeysaan ñoom nga ni ñoom ñëpp wax dëgg yàlla di leen du ma gëj a déggante ñoom ndax chaque jour ñi ngi déggante macha allah mhm. euh, euh, mama Fat Diallo. mama Fat Diallo. Diallo Jéeri. <laughs> yaay Cheikh ba nga jóge fa. Mhm. kóllëre mooy dox seen diggante. wallaahi lazim. te dama seq ak ñoom kóllëre. Mhm, mhm. kon munu maa def émission waaw. yàlla ndeysaan daba euh, booy. ni may ñaanalee sama waajur noonu laa koy ñaanalee. yàlla bu ma fanaan. waaw akbar. barke Seydina Mohamed. du ma yor sama kurus mukk. te ñaanal ma ko. bu ma ñaanalee sama ñaari waajur waaw dañoo bokkoon sëñ moom dañoo bokkoon ak moom sëñ Fallou. waaw bokkoon sëñ Fallou itam. Mhm. firdawsi rek ah sëñ Fallou moom bokk moom firdawsi rek firdawsi rek allahumma ya rabbil alamin amin ya rabbil alamin amin allah. Mhm. Euh, yàlla nag kenn du ko coow moom. déedéet. suñu borom mhm, na fi ñaata at. ba àdduna xam ko mu fi door wallahi lazim wallahi waaw mhm. allah ku leer mhm. ko ñaanal allahumma amiin yal na yàlla nangu ñaan yëpp mm-hmm. surtout surtout yal na yàlla nangu ñaan yëpp te euh, ñu jotale ko yool bi ci daraje Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam barkeb Cheikh Modou Fadal xaritam ba sëriñam ba sangam ba ma waxee moom mu yuuxu taaji taaj ci ne sëñ Fallou laa bëgg sama xarital donc macha allah ndeysaan ndeysaan macha allah wallaay maa ngi mi ngi koy toog lu leer mm-hmm. ndeysaan ndeysaan ndeysaan wallaahi azim loolu la ñu mhm. mujjee waxante wallaahi ndeysaan ci ta ci mooy si tabaski daaw mhm. la ñu mujjee wax mhm. ndeysaan dëgg la de activité yi rek activité yi mënta ah, ñàkk allah yal na ko yàlla sama borom jotale ci yoon yëpp ci daraje Seydina Mohamed maman fi ma bëgg ñu duggaat ko dama seetaan sa dañoo toogoon ci bi Macky Sall di door toog premier mandat li gars yi bañ ñu ko ndax nee nañ fi mu toll troisième mandat lay lijjanti ñi naan deuxième mandat lay lijjanti waaye daal man xam naa ni ña ma ca defaloon jotaay ñu waxoon ma ci yow bokkoon nga ci yow ak Mariama si nga ni ma woon premier mandat bi mu toog nga ne amuñu ma di nga ma dina am deuxième te booba ma ngay liggéenti deuxième jamono dem ba mu am deuxième li may wax itam ku weddi li may wax demal seen flash vidéo yaa nga fa tege nee naa leen xaw ma kan waaye ñun duñ dem baar baar mi gaa yi xewal non ñun fa dem léegi nag déet man kay def ñëwaat naa leen ku bëgg vidéo yi ma nga seen place. waaw saw lay de ndax man du ma jëm saw. ndokk yàlla man penku laa jëm. ndokk yàlla léegi nag. Macky moom fi mu toll nii bëlki démb wàññi na dund yi ba tey jii man tey sama statut WhatsApp ñi ñu xëy ñi borom boutique yi bañoon a wàññi seenug dund. gars yi dañoo xëy tey dëkkal leen di dëkk bi man am na ñu ci jot a ramasser seeni marchandise ci boutique yi ak yëpp moom laa def sama statut WhatsApp man. kon ñi ngi ciy doxi jéego waaye dama bi ma ko analyser dama ne ngóor si mm-hmm. président est-ce que du troisième mandat la nekk di lijjanti tax mu wañi dund bi ba pare teg ci application na gaa yi jóg wàcc ci terrain xool ba xam ndax boutique yaa koy wàññi wala wàññi wuñ ko ma ne nag léegi dinaa la ci laaj ndax gannaaw ci première ba am na loo waxoon deuxième ba nga am loo wax mm-hmm. ngóor si daa mel la bëgg de dama bëgg nga waxaat man kay naa leen vidéo baa nga fee te fa waar moom vidéo bi mi ngeeg yow. mi ngeeg ko teg ñu ko. maa ngi nii kay kuy nëbbatu du wax. mi ngi seen flash. mooy comme man la nga ne ma naam ma ne day jël day dem troisième mandat waxuma la ko woon. ah maire démb si woote ne soññaat na askanam soññaat na ak njabootam waa APR ne leen jaay leen maximum de carte lu mu gàtt un milliard cinq cent millions de carte laa bëgg ngeen jaay ko. kon moom day dem troisième mandat lay jëm moom. waxuma la ko woon. koy wax da dul woon tey li tax ma indiwaat bi ndax damaa xool bi tey rek journal loolu lañ loolu lañ nit koo xam ne dugguma ci ay coono coono. <laughs> Eh, dugguma ci benn détail te lépp lu may génne ci sama gémmiñ gi daf may leen. Mhm. lu ma incha allah ci kattan suñu borom. du indi guerre mondiale man kay lan ma lépp li tax ma indiwaat question bi indiwaat ko. Mhm. bu mhm. mhm. boobu Sonko fi xewul. boobu Sonko xewul. boobu Sonko xewul boobu wax day leer. xewul. man xaw ma ko. xewul xewul kay man la maire tro man la maire troisième mandat bu ko fi ba deuxième bi. bu ñu ba deuxième bi jeex ba ba deuxième bi man la Macky Sall day dem troisième ñetti at ci mhm. man xaw ma Sonko. Sonko xewut mais Sonko daaw la xew. kay ah, nañu may jàmm tam naa la lépp lu may wax mu sama gémmiñ ji dafay loolu dafay am lu ma xamul du ma ko wax te lu dëgg du ma ko wax. laaj troisième mandat na ko kay ndax li mu wax de moom dina jaay leen un milliard cinq cent ah, loolu moom ku bëgg ku bañ troisième mandat dina am li wax na ngeen ci bàyyi xel. troisième mandat dina am xaw ma mu jot mu bañ a jot mais troisième mandat Macky Sall da koy laaj man nag duma Macky lu leer laay wax. faroog moom sax nag. faroog maag moom àndoog moom itam. te loolu moom leer na ma man loolu man leer na ma man. loolu leer na ma. parce mhm. que Modou Fall. wallahi xam naa ci dara. ànduma ak moom mais dëgg da dëgg. Mhm. li ma gis laay wax dëgg la ci li ma gis mooy dëgg ci man ndax ki keneen gis man xaw ma loolu damay ragal ma damay ragal maki politique la pour nga teg la ci wetam nga di ko xoolal bagage yi fi mu toll Mamadou Fadal li ma gis man moom lay wax mm-hmm. taxul man niinal sama ceeb xaw ma ko Macky xanaa ci télé bi laa koy gis ba sa ceeb di niin yow waalo waalo rek yow maa ngi campagne wallahi asi lu ma meew andi lu ma suukar andi lu ma dépense sama dépense maa koy liggéey ci sama biir kër fi ma toog laa koy xaw ma ko xam Macky eh. mais Macky day laaj troisième mandat loolu par force la sama dëgg sama baat bi nañ ko jéem a dëggal te képp koo xam ne yaa ngi geer ak Macky nga taxaw te di nga jàkkaarloog moom da ngay jàkkaarloog moom mbapat la bëre bi mbapat la mbapat Macky Sall day mbapat ak ñoom fi mu nekk nii commencé na mbapat mi tàmbali na lu leer laa la wax Macky Sall mi ngi mbapat te mbappat mi tàmbali na su ma leen ko waxee bu yeboo ngeen bàyyi ci seen xel mag politicien la aka aka aka waaw aka fees gis lii xew fii fan yii yëpp ci mbappat mi la bokk lii yëpp ci mbappat mi la bokk problème ci mbappat mi la bokk yëpp ci mbappat mi na mi waar nit ñi politicien la politicien la xanaa xamoon ne bu tudd sama liggéey bi pour tey maa ngi na waaw naa mbooloo lool sax <laughs> ak maa am mbooloo ku ma ni jógal bu def eh, way <laughs> ak maa am mbooloo mais maa bàyyi politique maa ko teg ci suuf waaw koor dama daan toog wallaahi la azim lépp fekk ma sama kër la ma bëgg daf ma daan fekk sama liggéey liggéey bi da ngay saay dafa saay-saay gis nga politicien bu mënul fen waaw politicien yëpp mën a fen na ma yàlla baal dañu bàyyi baal ma ci kàddu ndax gis nga boo dëggoo ba mu ëpp doo mën a politique dëggoo ba mu ëpp doo mën a politique yow yaay ci koñ bi dig leen ay milliards na xam teg ñoom ci kaw wax ju da nga leen di wax wax ju neex xam ne ñoom bu ñu tëddee dañuy reebe kañ lañ ko war a jox suñu paree pare nañ ci gis nga ñi jege mhm. dinañ joxe dinañ mhm. jox ñi jege mhm. mais ñi nga xam ne dañoo sori waaw ah, damaa politique nekk damaa def politique damaa def politique sama ko xam nañ ma ak ni maa ràññee. moom wax dëgg yàlla Pikine moom sa Pikine la woon macha allah. waaw Pikine moom sama Pikine la woon macha allah dëgg yàlla Pikine wax yàlla jotaay bi neex na lool te nee naa leen ni duuf ci cin bi xajul ci nag ni duuf ci nag bi xajul ci cin waaye ñu tànn da ca gën a baax. waaw def ci cin. kaddu yu mujj yi ak message bi nga xam ne tey di nga ko lancé Sénégal rawatina xew-xew bi am dimanche bi di ñëw coupe du monde moo xew Sénégal ku bokk ci ñi dem coupe du monde ñuy rawul gi ñu amoon ci Coupe d'Afrique bi yàlla nag mooy joxe yàlla mooy joxe eh, wax yàlla bu ko neex lay la ñu ngi ñaan yàlla jox ñu waaye xam naa du yomb waaye daal boo ci gisee sarax ak message bi nga xam ne daal di nga ko lancé askanu Sénégal rawatina mbokk internet yi nga xamante ni ñi ngi nekk fépp ci biir réew mi à travers le monde entier muy ci national bi ci international bi kenn ku ci nekk itam message bi daal ñun ñëpp ñu bokkandoo ko ñun ñi nga xam ñëpp ñi ngi lay seetaan ci ci ci télé bii di Salam Vision daal ñu bokkandoo ko ak sarax boo fi gis wala ñaan ko xam ne war nañ koo mën a def daal ngir réew mi daal réew mi am jàmm réew mi mucc ndax ñun ci jàmm ak salaam ak dal ak ci lañ xaj du ci mel ni suñu maam tàmbale dal mooy mooy jaboot dal ci la lépp xaj boo dalee lépp loo xam danga ko xam boo dalee lépp loo bëgg a lijjanti du ko lijjanti mais ki ànd ak fitna mënta lijjanti dara moo tax dañu war dal war teey war a xam fi ñuy teg suñu tànk te surtout Sénégal dañuy bàyyi xel de trop. Mhm. pays yëpp dañu bàyyi xel. Mhm. ak ñoo bari cat ak ñoo bari cat su fekkee ne wàllu football bi mhm. ah, kër bu nekk su fekkee ne mën na génne juróom-ñaari classe ak benn kaamil ñu ko ci jumaa wallahi azim yàlla du si fas suñu yaakaar wallahi azim yàlla bu suñu yaakaar nañ leen ko génneel kër bu ci nekk su fekkee bëgg nga ubbi dëkk biir ci biir Sénégal nañ génne benn kaamil ak juróom-ñaari classe suñ ko mënee def te yàlla tax ndax lii suñu alal la suñu alal la suñu succès la suñu kon nag kër bu nekk su fekkee mën ngaa génne benn kaamil nga yóbbu ko ci jumaa nga génne juróom-ñaari classe séddale ko tuddee ko suñu borom def taw feex jàmm rek jàmm njëkk jàmm njëkk jàmm te alxuraan bi ci ñu am ci yaakaar loolu daal def moom ñu def mi ni may dégg mu daal di loolu moom waaw moom dina ci kàttanu suñu borom loolu moom dañ ciy am ndam sax am naa ci yaakaar am naa ci yaqin am naa ci lu kawe sama ndox aha waa tàggu askanu Sénégal ndax xam naa dinañ na seetaan waaye tàggatoo bu tàggatoo ndax xam naa ne damay dellu si waat lu yàgg dara ci kattanu suñu borom waaw dañ doon nuyoo rek waaw nuyoo rek dama doon nuyoo si rek nii de ndax am na loo xam ne maa ngi ko dëxëñ te génn ko di ñëw ci kattanu suñu borom dana génn incha allah damaa di nuyu samay mbokk di leen jaajëfal ak xale yi may jàppale sama waa kër yi may jàppale ci liggéey bi surtout dañ may jàppale bu baax maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax mënoon nañu maa seetaan waaye lépp luy sama yitte dañ ci taxaw des fois liggéey bi day tar lool waaye dañ ci jàpp fanaane xoole fajar lañuy ñuy commencé di bind ba xaaju guddi kon nag dama di ñaanal guddi fan wér wér le mucc mucc le ci barke Sëriñ Fallu Mbàkke barke Modou Fatal Fallu aw Bousso maa ngi koy ñaanal ñëpp di leen ko ñaanal euh, seen lii ngeen di liggéey nii daana ngeen def du dem ba ubbi seen téléphone ci barke Mamadou Faataw ndax xam naa ne suñu borom mën na ko ndax dara tëwu ko dara tëwu ko suñu borom li mu yor da koy maye rek. boo tàllalee sa loxo. Mhm. sukk sa ñaari bëti woom mhm. boo ko ñaanalee boo ko ñaanee li muy li mu lay ñaanal. Mhm. li ngay ñaan moom dala koy daal di may. te ndax li mu yor moom doyewu ko dara. jaamu yàlla yee tax mu yor ko te aminam. ñaan suñu borom ba mu ne amin. may naa la ko. wallahi azim bal bu tàkk. waaw da koy def sax ko gërëm ko bu baax a baax ñaanal ko yàlla suñu borom dollee ko taxaw dollee guddal fanam dollee wéral ay cëram mbooleem yéene yi nga xam ne mébét na ko yéene ko askan wi tamit yal na yàlla sama defal la ci lu kawe sa jot ci daraja Cheikh Mamadou Fadal nee naa la ki nga bëgg moom la àdduna yëpp bëgg ndax bëgg ko mooy bëgg sa bopp mooy borom yaa faadilan fadlahul xalaaxu yaa man bi xii faaraxan yi imlaahi wallaay sul fadlul azim alxuraan li muy rëy rëy rëy turu Cheikh Maodo Fadal képp ci nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy gën gi mbindeef turam ne ci alxuraan waaye sëñ Fallu mooy ngëneelu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala loolu tax suñu borom jël na saawaan baawaan baa dina wër këpp jot ci Mamadou Fadal mooy li mu yeeru àdduna wallahi azim su amutoon xaw ma fu ñu koy fu ñu koy waxee kon kon kay àdduna tukki su amutoon lay kon àdduna tukki lay kon àdduna tukki kon sama àdduna tukki wallahi suñu bos ñun ñëpp day tukki màkk suñu tubaab màkk allahu akbar yal na yàlla xeeb doolu bu baax a baax gërëm ñëpp rek jox ñëpp di daje insha allahu rabi taala i suñu jéneen jotaayu xam-xam yi ak seen jotaayu xam-xam bi nga xamante ni mooy faj sa jàngoro fii ci biir Salam Vision di jàmm ju ànd ak gis-gis gis-gis na yàl na law ba kenn ku ci ne gis sa bopp ci daraje Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam barkeb alxuraan barkeb Cheikh Modou Fadal jërë ngeen jëfoo salaam ci barkeb say xi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàlla bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla dolli ay maqaam yàllaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla ay maqaam yàllaw